mbokk yi dal leen ak jaamu ñu ñëw ak yéen ci mbir yi doomi Serigne Moustapha Sy Al Maktoum bi di wuyoo ci turu Cheikh Tidiane Sy te jamono ji police di ko wër ginnaaw enlèvement boo xamante ni ñu ngi ko ci tudd bu amoon le 16 juillet bi nu génn foofee ca kër Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum fu jàkkaarloo ko école Manguier ba nekk ca fas enquête bi dafa mel ni lu nekk au point mort li ko waral moo di mise en cause bi di Cheikh Tidiane si di doom ci Serigne Moustapha si jamono ji moom moo réer mër moom mi nga xamante ni moo jiite woon boobule supposé enlèvement bi la dossier nag kii di procureur moo ko jël en main ginnaaw bi nga xamante ni ndeyu mbill gi ñu enlevé woon moom déposé na ab plainte foofee ca tribunal ngir teg loxo Cheikh Tidiane Sy nag ñi nga xamante ni ñoo di waa police nationale ñu ngi wër kër yi nga xamante ni baayam Serigne Moustapha si am na ko fépp ci réew mi waaye nag fuñ ci dem rek dañ leen di xamal ni ki di Cheikh Tidiane Sy dëkkul ci kër googee mbir takku der yi ak yi nga xamante ni moom la ñuy wër di Cheikh Tidiane si waaye nag mu mel ni wiiri wiiri jaarindaari jeu bi lu mu yàgg-yàgg ab police dinañ ko teg loxo ndax kat am nañ ay jumtukaay yoo xamante ni fu waay mën a nekk ci Sénégal dinañ la teg loxo wala yàgg dara ci fàttali nag le 16 juillet gi ñu génn ci la ñeenti oto yu sofoon ay taalibe ba fees dell daal di wàcc ca kër Serigne Cheikh Tidiane si Al ba nekk foofe ca fas jàkkaarloog école Manguier daat fay jàpp benn ouvrier kidnappé ko mu mel ni ab film moom jeune ouvrier bi nag ginnaaw bi nga xamante ni taalibe yi teg nañ ko loxo jot nañ ko yóbbu ca kër Serigne Moustapha Sy laata rek ñu koy bàyyi mu daal di ñibbi ca këram ci ginnaaw bi nag ci la moom ndey mbi gi daal di déposé ab plainte ngir ñaawlu xamante ni def nañ ko ko fii la ñuy yam ak yéen daanu leen toppal mbir mi indi leen ci yeneen li leeral jërë ngeen jëf